alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi ne ma way kat yaa woon de jot seen may yor laaj jee mayal ba nga way rasulallahi ahmadu jaw farlul sa delloo kaadir sa jéema wax bindéer yi koy sa maa ngi ci téeméeri at hmm. ak juróomi at yu mat sëkk weer wi defe naa daan moo ñaar fukki fan. téeméeri tam xarit daal. Mm-hmm. ak juróomi tam xarit. Mm-hmm. fekk na ma ñi di jërëjëf papa dafa naa affaire yi leer na trop ñu ngi jégalu si waxtu bi nga xamante ne moom lañ jël si yow waaye dafa am ñu bëggoon wàccantiku rek maanaam muy ki nga xamante ne nii moom lañ ubbee woon jotaay bi muy Mawlana Serama Fall nga xamal leen ñu yow ni nga bokkee ak moom ak moom tamit ban taale bi moo jiitu si moom wala nan la def moom ba taale bi di ko fekki si Ibrahima Fall mhm. Ibrahima Fall day ñoo bokk bokk ak doomu aadama la. Mm-hmm. mare doomu aadama. Mm-hmm. waaye bokkuñ deret. Mm-hmm. bokkuñ meen. ndax moom baayam a nga dëkkoon Sanjaan. xam baayam. xamoon mbokk fii Kébé Mbodj. ñu ne wax Tamsir Malick Fall. foofu la Ibra Fall nekkoon. foofu la ko bàyyi fekk ñu daan bokk di ànd. bokk Eh, di tëdd ci benn lal. ci niñ ma ko nettalee. waaw. waaye. yàlla ma ma booleeg moom. ak bàyyi ki ñu boole ba may tarbiya. waaw. Ibra Fall nag. di li ma nekk moom. बुगो नम बुगे गो खामने यानी बाहर के कोई बुगे दो बुगो नम यज्ञ ना कोई नेक ना हम हम यारी नवेद कोसी अग यारी नौर ना तो हाँ भाई कौन से दीर्घ बुढ़ाल दख सखनाम सुजक कैरवन कोई बुगी जी का वाला नहीं लेकर वहाँ मिल सकना मन लटक की फसम यहाँ ने जम से का वाला को मिले ना वो मुझे हमें फसु फसु फसु जकेर वो हमने ये भाई को जिंदा जको c'est ça. fas woowu fas woowu. fas woowu mënoon a dox moom la takk war si. ne ma waxee waral si gannaaw. mu war si gannaaw ñu ànd kaw la. ba diggante diggante Médina. ak Daral. fa la ma joxee suma sikar sikar yi ñaareel. si yoon bi nga nekk. waaw diggante Médina ak Daral. fa ma joxee sikar si ñaareel. moom El Hadj Ibrahima Fall. macha allah ñu ñëw ci ngoro gi mu joxe góor ñu jël ko. ñu may ko ndaw si. kooku moo jëkk jëkk doon jabaram. gannaaw gi. ah la jël ndeyi Baay Faal mi ci Kossy. Baye Fall dañ lay ñëw fii malade bi daañu si def. dépassé mhm. na ko. waaw ñu ngi baay néeg bi bi néeg bi moo doon si nekk sama baay. néeg bi. néeg bi moo doon nekk sama baay. ko mooy doomi maam Alaaji. Mhm. ko mooy Baye Khalifa. Mhm. toog na ci lal bi lal sama baay bi. ko mooy Baye Khalifa. moom rek laa mu di toog. Mm-hmm. waaye mboolem ku maam alaji jur mm-hmm. ba ci Mor Xadi ki nga xam ne moo doon caatam mm-hmm. toog na ci lal bi ndeysaan waaw bu bàyyi ko xaal mbiri ne jëm kër ma jibél benn mu jaar fi dem wala bu wëññee koo jaar loolu yëpp takkee gu xaal xuraan takkee woon ak maam moo waral loolu yëpp mais Ibra Fall dama déggoon ñu wax naan Ibra Fall dafa bàyyi la maanaam comme daal moom léppam rek bàyyi la woon. waaw ah, gëmoon na ko de gëm koo xam ne kii xamale wul koo kenn. waaw gëmoon na bàyyi ngëbeen koo xam ne. xamale wul koo kenn. Mm-hmm. waaw seetu ci kenn tam si diggante moo bàyyi. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. xam naa lim mu xam jàng li mu jàng ci xam-xam. Hmm. Hmm. bàyyi ko ko jàngal keneen jàngal ko. Hmm. waaw. macha moom sax dafa mel nii am na ñu bari ñoo xamee. dañuy jàpp ne moom moom jàngul. laa hawla wala quwwata jàng bi bëgg a dee la def. jàng bi bëgg a dee la def. jàng bi bëgg a dee la def ku am xam-xam la. jàng naa hmm. hmm, hmm. dafa xamul Ibra Faal. dëgg la papa. fi nga xamante ni fa la ñuy mujjante ndax fi mu waxtu yu jot nañu. te defe naa fi mu toll nii dëgg-dëgg gis nañ maanaam ne toogaay bi métti na. te waxtu yu jot na pour maam nga waajal waxtu wi. fi tagati ko moy ki nga xamantene ni batay moy tey mooy suñu sëriñ di Cheikh ban année la ñëk dem makka ak ban at la mujj a dem makka ndax japp nga xam de moom Baye waaw. am na ne 36 la la dem makka 36. 36. la dem Màkka waaw dem dem waaw waaye dama ko njëkk moom xam naa ne 36 la la njëkk a dem te bi mu wàññeekoo si la rëdd jumaa ji waaw ba muy dem ànd kenn ba dem hmm. ah kay am nañu àndal àndoon naag alaaji ma Abdou Ñam ak alaaji lamin hmm. Lamine soxna bari dëkkoon Faas hmm. ak kan ak ku dëkk Jaamal xam naa ko moom dafa mel ni sax lim dem màkk bëri na wala jàppoo yoon lim dem ñaata yoon. xama fukki yoon ak juróom-ñaar xama fukk ak juróom-ñett de. Hmm. waaye soriwul yooyu. waaw. jërëjëf papa kon kontaan nañ bu baaxa baaxa baax ci li nga xamantene ni mom nga ñu dalalee fi ci sa dëkk mhm. dëkk bi boobaak léegi ñaata at la dëkk bi ne ñaata am gum dëkk bi mhm. fi laa juddoo de mhm. fi laa juddoo de té man ma ngi ci téeméeri at ak mi hat yu mat sëkk wër wi defe naa lan moo ñu téy lan ñaar ko fan téeméeri tam xarit daal. ak juróomi tam xarit. fekk na ma yidi yi. weer wi teel a ñaar fukki fan ak lan teel a fukki fan defe naa. Ah? bon xat mi ren mi. Hmm. ñaar fukki fan laa ci xamagum. Hmm. dëkk bi nag magee na ma juróom benni at. Hmm. waaw dëkk bi. magee na ma juróom benni at. nu mu tudd dëkk bi. ñi liin ñi liin ñi liin yow ñu lay wooyee nan hmm? yow nu ñu lay wooyee man hmm. Babou Kébé lañ maa wooyee hmm. waaye Ibra Fall moom ni ma xamee boo mu de Babou Njéeme ndax su ma nee Njéeme la tudd te Babou Njéeme la ma daan wax ñu bëri ci Medina Babou Njéeme lañ xamoon ci jamono boobu ñi fi ne nii nag ñàkk nañ maa xam waaye ma ngi leen di mm-hmm. soo demee Cheikh Cissé. Mm-hmm. ndeyam Assa Daw. Mm-hmm. soo demee nga ne ko. ka ñuy wax Babou Kébé ci ñi leen sañ. nee na soxal na sa yaay ba tey. sa maam ba tey. soxal na walal na ko ba tey. rootal na ko ba tey. lii naa ko yaa Assa Daw. yaay Cheikh Cissé. yaay yaay Fatou Fatou yaay Fatou Sera. Hmm. defal naa ko Fatick. booba mbiri hmm. loo góor mage mage mage. Hmm. da nga soxal jigéen. wala nga waral ko. wala nga rootal ko. booba mbiri na neexul. yombu fa. ndox yombut fa. ah boobu daal yooyu yoom jafe na ko. lekk ak ndox. Mm-hmm. boobu yombul mi dina. Mm-hmm. waaye nag ngelaw bàyyi moom. Mm-hmm. massa manqué. waaye doy toon taalibe yi. ah boobu nit ñi dañu ko jërëjëf papa kontaan nañ bu baax a baax ñu ngi lay tàllal suñu loxo di la ñaan yàlla di la ñaanal yàlla tamit yokk kattan gi ak man-man gi ba nga yàgg fekkee lu bëree bëree bëree bëri suñu kanam ni ñu amee yéene di ko def saa su nekk rek si mag yu mel nii yal na yàlla di ñu ko yombalal saa su nekk rek maam ñi am xéwal yu mel nii defe naa tey ki jiitu si àdduna gën la koo xam te lu mu la waxi takkal xam ne loolu mooy njëriñ papa sant nañ bu baax di la gërëm di yokkaat ñaan wi fan bi gudd bu baax a baax te ànd ak wér te defe naa nekk dana doy waaye dunu moom du doy

fay du baay bi ci leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV